asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ah, yéen mbokk yi nga xam ne yéen a nekk ci rasul irada yëpp ñoo ngi leen di nuyu eh, di laaj seen jàmm ak seen jàmm yaram di ñaan yàlla suñu kàddu fekk leen ci jàmm yal na yàlla defal ñu jàmm ñuy dégg jàmm di gis jàmm yal yàlla jàmmal ñu keroog si jàmm jafee yal yàlla defal nu li gën ci nun te mu gënal nu ku ñu nar a mbugal ba ñu fàtte yàlla yàlla na yàlla mbugal ba nga fàtte ñu amin euh, suñu tan bi ak irshad bi ba léegi ñoo ko jëmee ci eggale lañ doon junj keroog ca guddi ndax dañoo jukki woon ay bayit waxtaan ci te dañuy jukki bayit waxtaan ci téere boobee ma leen doon wax te Sëriñ Tuubaa bind ko ci laa ilaaha kenn du yàlla ku dul yàlla kenn du yàlla ku dul yàlla muhammaday ndawal yàlla noona la tuddee noona la datee wax jim nar a wax ca biir taalif wa demoon nañ sori waaye nag topp ñu téere bi bayit par bayit dañuy wax li ñuy yitteel fii dem ba fee wax fa li ñuy yitteel jàll noonu lañ ko doon defee léegi nag keroog lillahi rabbi la si xat jaadali bi uda ca lañ déparé woon doon wax ci suñu boroom fi ko Sëriñ Tubaa teg di yee doomi aadama yi ci li ñuy ne al Sëñ waxu ko ak fi ñu koy teg te tegut fa boppam ndaxam du ko tilim bañ di ko sang dafa set wecc waaye ñi ko gàddul àq mooy ñi koy nexal lu mu waxut di ko teg fu mu tegut boppam ndeyee ñoom daraja lañ ci bëgg alal ak mbooloo ak ñu leen topp coow mbooleem waxkat yi nga xam ne ñoo ngi ci yoonu murid di wax te doon ay simple waxkat waxuma nag ay ñoom Cheikh Ahmad Rifa Muhammad Rifa yéeg sëriñ si nga xam ne ñoom dañoo takk seen digg jaar ca yoon wa seen maama ya jaaroon te bëgg woon nit ñi dëgg te sax taxut ñu saf nit ñi ndax nit ñi bëgguñoo dégg dëgg waxuma ñooñu waxkati mbedd yi ñuy woo ay conférence ñiy laaj ay avance ñi leen di fay xaalis nit ñi daje jigéen ñi toog xeexal ba weex mita bula rosa lefor tagal ay tagal ay musóor eh, ñi toog di tal tali ñooñu laa wax ñooñu a tax di wax ñooñu fa ñu waxal sëñ Tuubaa ne fa la toll moom eggalewu fa boppam ñooñu barab birib ba ñu teg sëñ Bamba sëñ Bamba xalaatu faa toog Euh, waj'al maqaami maqaamal murtada anasin fi xidmatin waxoon naa leen ko anas ibnu malik mi nga xam ne moo nekkoon bokk néegam yonent bi Sëriñ Tuubaa doon ñaan yàlla may ko maqaama mu tolli maqaamam anas wax ko noonu rek waaye nga balaxal ma daa am na ko weesu na ko romb na yonent bi egg na ci yàlla tiim na ko loolu mooy lan Ah, yow sëriñ bi su fekkee dafa bind li mu bind naxu ba ne nocc aroot ba ne nocc mu dëppoog alxuraan dëppoog sunna nga mën a dem ba ca kanam kaaba ak makka ga nga dara say nopp te dégg nag arab mën a maxaari ndax foofu ko wax wax itam dañ waxoo dara da nga jógeel fii la waa ci waxoon ci jàngkate alxuraan yi ca Kawlax rek waaw ña nga xam ne ñoo doon jàngal alxuraan benn professeur égyptien ñëw ne waaw ma ma ma sa yafaluun haulaay ma sa mu ne ah, la la haulaay majaadiin ñi ay dof lañu ñu jànguñu alquran waaye waaye maanaam sëriñ bi li mu bind soo ko waxee na na yax ba tëddee firi ko yem ca bañ caa baraxal man daa bañ caa yokk yem fa mu yem mën nga koo wax Makka ak Madina mën nga ko wax fu ne waaye gaa yi nag xam nga xorom moom dana dana tax aw ñam ñu mën koo lekk waaye ay kilo yu xorom moom kenn mënu ko def ci benn ci mu am njëriñ gaa yi xoromal rek moo yàq seen affaire yi ak bëgg aj seen bopp waaye xam nga ne sëriñ yonent yàlla moom salaa salaam suñ tuwaa mus ta ñaan ne ko ne yàlla may ma maqaamam muhammad xoolal bëkk léegi muhammad yi waj al maqaami maqaamal murtada anasin fi xidmatin waaw maqaama mi anas amoon ci liggéey bi mu la doon liggéeyal yonent bi dama lay ñaan maqaama mu toll noonu nit ki sax mën naa ñaan maqaamam lenn dem ba romb loola waaye nag xanaa ka muy ñaan loola te te loola muy ñaan kooka moo ko mayoon ka ka ko am bam di ko ko ñaan xanaa du dem nag ba egg mu may ko la mu mayoon kooka mu romb kooka romb ko moom mi ko may romb borooma ma leen bind fu mu jëm nag léegi fu mu jëm kenn xamul fu mu jëmati di loolu dafa war a xew yi ba leen ko amut njëriñ Sëriñ Tuubaa dafa wax ne yàlla moo ko jubal waaye nag mi ko jubale ci yonent yàlla Muhammad mi nga xam ne mooy fari bàkkaar yàlla mi ko jubale ci alxuraan ji nga xam ne bi ko yonent yàlla Muhammad indee la jubal nit ñi moom dafa wax rek ne ni ñëpp jube laa jube yàllaa ma jubal te mi ma jubal ci royloo royloo ma muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàllaa ma jubal te mi ma jubal ci téeréem bi hadaani yàllaa ubil maa i muhammadina wa bilkitaabi alladi qad jaa bi fahada loolu laa doon wax loolu laa wax ci arab mu teg ci julli ci yonent bi sëlmal ci moom xam le man su ma matee bay mottali ay nit yonent yàlla mat salaa sallam la ma yàlla xiir ma ne ko dann ba mu matal ma ba ma mën a matal ñeneen liggéeyal ko ci laa nekk di ci nekk ba yàlla may ma ma am darajay ku dem aji ak ku faatu ci jay ci ci kuy shahid ku jaar ci yoonu yàlla ba deeta mën a am yoolab ku aji te ajiwoo nekk na am yool bu gën yoolab aji te ajiwoo sax mën naa nekk mën a am yoola ku dee ci jiyaar mën naa nekk mën a am yoolab saaba mën naa nekk a am sax yoolab fukki saaba yu dee ci jiyaar mën naa nekk yéen ti wax na loolu lépp waaye ëpp maqaama ab saaba nag munta nekk ndax dafa gëm yonent bi te gis ko ànd ak moom di xare teew defoo loolu صلى عليه بتسليم وكملني بي خديما كمن لبى ومن شهد لولا دون wax léegi ci wolof nee na yàlla mu kawe mi moo moom sama waxante ak samay wax waaye li may wax di ko jox suñu boroom bëgg mu defal ma ko mooy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yenent bi nga xam ne mooy ngeen ji mbindéef yenent bi nga xam ne suma ma muccee ci coono moo tax lillahi jalla bi salaati ala xayril wana man bi i anni nakada mu jóge ci loolu daldi ne suñu boroom na dogal ak julli yow mu tedd mi julli gu àndu ak di ko lim ak sëlmal diirib jamono ak fu mu fi feeñee waaye yàlla wuyul sama woote bii te nga wuyuma ci daraje muhammad sallallahu alayhi wasallam nag ma wuyu ci àddina nag ma wuyu ci laaxira te itam lépp loo xam ne soob na ma ci ay tëbb ak i may naka nga ko wommat jëmale ci man waaye nga wommat ko ci daraje muhammad sallallahu alayhi wasallam lil mustafa aktub salaatan yaa karimu bila addin wa sallim alay idda ra'aytu bada ajib du'aa'i bi'i dunya wa akhiratan wa sux ilayya bi'i ma shi'tuhu madada loolu laa doon wax mu ne ko antal mukawwinu antal mukawwinu yow yaay aji nekkal ji nga xam ne yaay nekkal lépp lu la soob yaa boroom bu tedd bi yaay ki nga xam ne jureesu la te juruloo kenn yaay boroom asamaan yaa moom suuf yaa moom jaww ji lépp lépp lu la soob rek loola mu am yaay boroom buur yi yaa moom ñay topp buur di dang ci seen ginnaaw yaay borom ministère yi jàppale buur képp koo xam ne kii nag day bëgg a ngandee ngandeeloo ba tal ni yow ne maa la gën a màgg kooku moom mbugal mu ànd ak toroxte dana ko am antal mukawinu maa xat siita u abadan rabban kariman walam tuulad walam talida yow yaay aji nekkal ji yaay nekkal lu la soob faw doon buur bu tedd buur boo xam ne yow kenn juru la te juróo kenn kenn juru la te juróo kenn laka sama wal araadi والهواء معا وكلما شئته لا بد أن يردا لك السماء والأراضي والهواء معا وكل ما شئته لا بد أن يردا Sëñ Tuubaa ne yàlla yaay borom asamaan xam nga waxul ko maa bind asamaan de yaay borom asamaan wala arab yi yaay suuf wal hawa yaay borom ngelaw li ma an lépp yaa ko moom wa kullu ma shitahu lépp lu soob na la yow lépp lu la soob la budda an yarida loola il faut day am yaay borom buur yaa moom ñi topp nguur gi yaa moom ministère yeeg soldaar yi ak dag yi koo yaakaar ne ak màggam nag mën nañ ko gam-gam leeg sa gog alkande lay am day tàbbi way lun lakal ma al atbaai wal wusara wa man yuaasimka yalxal way yalxal way la wal waqada képp koo xam ne yaa ngi tax bopp yàllaa la bind moo la moom yàlla moom buur yi yàllaa moom ñi topp nguur gi di daw seen ginnaaw yàlla yàllay ministère yeeg soldat yeeg général yi képp koo xam ne yaakaar na ne màgg na ba màggam gi mu di ko gam-gamle ak sa gos waylul la jëm di mbugal mu ànd ak lakk ñu ne ko Sëñ Tuubaa fi nga yem ne déedéet man awma dara mënuma dara sañuma dara yàllaay ki nga xam ne moo am moo man moo sañ mooy ubbee mooy maye maa ngi koy ñaan ubbi gu ànd ki may may yu baax may yu tedd abli bi kawnika fattahan wa kawnika wahaaban futuhan ibatin saali an sayda tubiya ilahiya بالماهي علي وكن دأبا به ماهيا عني لقا وددا علي سل وسلم مع جماعته وربي ليما أختار أبدا إلي بالآل والأصحاب في أبد سق الصلاة بتسليم كما اجتأدا للمنتقى اكتب صلاة لا نفاد لها مع السلام وسخلي العلم والرشدا أنت العليم الذي أشكو ضلال له فلشرئ الشطر واجعلني كثير أدا ala abi bika anni sallifi abadin maa salaami wali nawir bi xalada lil mujtaba tub salatan lan fisaama laha maa salaami wali xallit bi raqada ya rabbi salli wa sallim kulla asminatin ala nabiyi wa man kaanu la u aduda abli bi ya ilahi an ujaawira u bilqalbi warruuxi fii daarayni mujtahida wa xaytani inda aadaa'i bi'i dararan qini bi'i kulla durrin wal isaaba qada sallim bi ifsika qalbi rabbi fi min maradin min maradin muwaxidan muqinan wa takfini yahsada li sallimi alqalba min kufrin wa min salabin wa min nifaqin wa da'ban say'il jasada li jud bima faaqa sanni min ladunka biman qad jaa bi sikrin qadal xadan lil muttaqina uda muhammadin waltusux xayra salaati la o fi laali wa saabi man tafdilu um uyida sëriñ bi daawaroon na wax ci wolof ban meewkat yi nga xam ne li ñuy wax yëpp dara lu ci dëgg Sénégal xam ne li gaa yi wax yëpp dara lu ci dëgg dañuy làkk naar ba noppi firi wax lu leen neex yéen ak la leen neex ñoom ñuy firi ngeen di yuxali ko rek leen ñu leen di wax dara dëppoowu ci li suñ tubaab bind sëriñ bi dafa tuubal yàlla ne ko yàlla delsi naa tuubal la te maa ngi làqutu ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy farukaay yi bàkkaar yi na nga nekk faw di faral ay caaxaan ak i bàkkaar ci darajey muhammad sallallahu wa sallam tub yaa ilahiya bil maa i alayya wa kun daban bi imaahiyan anni laxan wadada na julli ci moom julli ci mboolem ñi mu àndaloon te itam na nga ma delloo si na ma jox lépp loo xam ne lii tàggatal ma lépp loo xam ne lii tànn naa ko faw naa ko am alay i salli wa sallim ma jamaati i waru bi iliya ma axtaaru abada ilay ibil ali wala asaabi fi abadin suqi salata bi taslimin kamajtahada yow yàlla na nga wommat julli wommat sëlmal jëme ko ci moom jëme ko ci ahlul bayti jëme ko ci saaba yi ni nga xamee ne noonu la góor góorloo takk ndiggam ba sampal la sa diine ji lil muntaqa tub salaatan la nafadala a maa salaan wa suxliil ilma wa rashada yonent yàlla bu ñu tànn bi lépp lu di julli dogal ko ci moom gudul jeex ba mukk mukk ànd ak sëlmal gudul jeex ba mukk te ci darajey Muhammad sallallahu alayhi wasallam na nga ma wammatal xam-xam bu ànd ak njub Sëriñ Tuubaa lépp lu mu am sëriñ bi la jaar di ko subordonné wu ci yàlla naa ko xoolal ci mu Muhammad defal ma lii xoolal ci Muhammad defal ma laa defal ma ci nangam ngir Muhammad mii lu ma am lépp ci darajey Muhammad sallallahu alayhi wasallam la ko amee donte salafis yi nanguñu koy ñaan ci darajey mbindeef waaye loolu ñun sofiyankee nangu nañ ko lan moo tax foofu mu teg boppam mayam yi fi mu ko jëlee wax na ko nit ñi lan moo tax ngeen di sàcc film bi di wax leneen yéen dafa ngeen ne bu Sëñ Tuubaa doonoon mbindeef muy bind yàlla suñ boroom dina ko wax ne yow yaay aji xam ji kenn xamalul yow yaay ki nga xam ne sama réer gi ma réer man suñ Bàmba ci yow laay ñëw di ko jàmbat ngir nga jubbanti ma ci daraja moom sama sama xat xol gi ak sama xat dënn gi laa bëgg nga ubbil ma ko sama ñàkk njub gi nga defal ma ko muy njub gu bari anta al alimu allati ashku dalala la uqal fali falisra istadra wajal ni katira uda lolaa doon wax léegi ci wolof mu ne ci sa soppe bi di muhammad sallallahu alayhi wa sallam na nga julli ci moom julli goo xam ne ci man mii la jóge ma yóbbante ko ci ma yóbbante la ko ci moom nga jullil ma ko ci moom saw ànd ak sëlmal te sama xel nang ko leeral ba mu ne nañ waaye nang ko leeral ci darajey mu sallallahu alayhi wa sallam ala abibika anni salli fi abadin ma assalaami wali nawir bi il xalada waay waay yunti yàlla muhammad mu ñu tànn mii yow yàlla sama boroom jullil ci moom julli bi dul dog ba mukk ànd ak ak sëlmal te boo noppee nag julli goo nga julli ci moom ak sëlmal gi ci moom nga defal ma ci yombal gu ànd ak naataange ju tax dàkk ju ma dul tàggalikool ba mukk lil muj tak lil muj tabak tub salaatan lan fi saa mala a ma asalaami wali qalib bi iraxada yaa rabbi salli wasallim kulla asminatin ala nabiyi wa man kaanoo la u aduda yow sama borom suñ tubaab boroom bi lay woowee yàlla suñ boroom si koo wax saa moroom waxantuma nag ñi di ko ko rombale yow sama boroom jullil te sëlmal ci yépp jamono ci kan ci yonent yàlla muhammad ak ñan ak ñi nga xam ne ñoo nekkoon përigu yéen ci yàlla Muhammad waman kaano la u aduda ndax ci seen kàttan lañ àndoon ak Muhammad di xeex ba diine taxaw ñu samp ko mënumaa dëkk ak Muhammad ci sama jëmm de ndax ma nga Madina maa ngi diggante Ndar ak géej ak gànnaar ak Jolof ak Bawal ñu téye ma fi ne duma fi jógee waaye su fekkente ni mënumaa dëkkaale jeeg moom ci sama jëmm itam nang ma may ma dëkk ak moom ci sama xol dëkk ak moom ci sama ruu fii ci àddina ak laaxira may ku ku ku farlu ku jàmbaare ku liggéeyal yàlla te ko liggéeyale sunnat muhammad sallallahu alayhi wa sallam qad aqani an masaari maskanal minani da madinata nuuri daarul fardi wa قد آقني عن مساري مسكن المنن مدينة نور دار الفرد والسنن أبلي بإيا إلائي أن أجاور بالقلب والروح في الدارين متئلا نغم مي يوسم بروم yaa ilaahi dan des na ko wax koo bind ndax yaa ilaahi nit dina ko wax boppam ndax dégg ngeen fenn ci alquran fu yàlla waxe yaa ilaahi jubli ci boppam waaw kii ne mooy boroomam lu tax mu doon boroomam ba noppi naan yaa ilaahi dafa bëgg a sëpp ko jinde jommal lu moom wala yéen da ngeen bëgg a wax lu munta nekk li wér te wér mooy yéen yéen a bëgg a wax lu munta nekk sëñ Bàmba xam na kuy yàlla da ko daan ñaan di ko wooyee sama boroom di ko wooyee sama yàlla di ko wooyee ki ma bind di ma di ko wooyee ki may jaamu di ko wooye ki may yaakaar ëllëg lu tax du ngeen ko nettali loolu buñ leen joxul xaalis ngeen dem taxane matt jaayi ko wala ngeen dugg ci àll bi seeni fas bañi wax lu neex nit ñi ku ci bëgg a dund doo wax lu jub mukk ci àddina nit ñi ku leen bëgg a nax ci ji jamono ci fen ngay dëkk doo wax dëgg mukk état laïque la ñu ne islam àttewul sañoo forcer nit ñi waaye boo sañ ca forcer nit ñi itam lillaay wa rasulihi bul fen ba forcer nit ci say pexe te li ngay wax du dëgg waxal dëgg te gore rek boo amee fukk ñu ànd ak yow te te te nit ñu dëggal moo gën junni waru barajulin xiimatan ka alfin waaye nag waru ba alfin qiimatan ka uffin suñ baam wax na loolu waxu ko sax daf ko nettali ñeneen na ko wax waaye am na fu ko bind te najul xadal aji di ko fa fekk sëriñ bi fu mu toll da doon ñaan yàlla dëkk ak yonent bi su ko mënul ci jëmmit mu man ko ci xol ak ci ruuxu loolu tax mu ne abli bi iya ilaa i an ujaawirahu bil qalbi war ruuxi fi daarayni mujtahida waqaytani inda aadai bihi dararan Sëñ Tuubaa jaar-jaaram yi ñuy coow yépp di ko tagg naan moo ma lay def lii moo def lii moo am jaloore moo dugg fi mu gën a moom nee na deful dara nee yàllaa ko fegal ay noonam waaye mi ko ko fegale ci daraja yén ci yàlla mu amat ma ca Madina loolu koy leer na naññ dafa leer déglu leen xalima ak sëriñ bi mu wax leen ni mu demee ngeen bàyyi waxkat yu dul dëgg yi nga xam ne dañuy yi te ñuy wax dara lu ci dëgg suñ bamba nee na su ma muccee ci sama noon yii yàllaa ma ci musal te ci daraja yi Muhammad la ma ci musale moom laa planton moom laa jaar ci gannaawam di ko wax xoolal ci kii dimbali ma xoolal ci kii rus ma xoolal ci kii tin ma ba mu defal ma léegi suñ tubaa ne ko noonu nga ma fegale ayu noon nag ci daraja yi Muhammad waay waay nag ma ci fegal lépp lu di ay lor ak lépp lu di ab réglé ëllëg buñ demee keroog yawmal xiyaam waqayta nii inda aada i bihi dararan jaloor yi gaa yi nekk yëpp di ma tagg doonu ci dara yow yàlla sa borom yaa ma fegal samay noon ci darajey muhammad nga ma fegalee samay noon waaye waaye noonu nga ma musale ci samay noon ci darajey muhammad waaye na nga ma fegal ëllëg ci darajey Muhammad lépp lu di lor ak ab réglé ëllëg waaw léegi dañu ne waaw nee dañ koy fegal ay lor ak ak réglé ëllëg kon murid yëpp min min ladunhu hatta naftu fi suur kenn du leen réglé dañuy dugg àjjana fen yooyu lan moo tax ngeen di ko fen Sëñ Tuubaa nee na li ma am ci yàlla muy sama jaamu gi ma koy jaamu saa boppa tax ma di ko jaamu kenn bokku ci ngeen bëgg ne lépp lu ko yàlla may rek yéene ko moom donte royu leen ci moom dara ba dara ya booloo jeex di ndaata nekk ci li leen neex te lépp lu sëñ Tuubaa yàlla may na ko ko rek nun murit yi ñu ne ñoo ko moom yomal xam ñoo ko jël te la mu def ba yàlla may ko loola defuñu ca pikin yi ñu ca dara liggéey lu ñu yàlla loolu bokk na ci li nga xam ne waroon naa ko eggale keroog te eggale ko ndax duma ma jàng xasida bi yëpp yi wax ci taw iid rek yi màggal yàlla yi wane maqaamam yonent bi salaa salaam yooyu laay wax su ma noppee dem ci geneen xasida boo demee ci téere boobu sëriñ bi tëggee ci wala xad karamna bani aadama wa xamalnaahum fi lbarri walbahri wa razaqnaahum min altayibaati wa faddalnaahum ala kathirin mimman xalaqna tafdila nga xam ne man ko ubbee wajjahtu wajhi liman takrimuhu baana fi sheri mawlidi man fi lbahri rabbaana sëñ Tuubaa dafa ubbee wax ji ne jubale naa sama jubbale jubale naa sama jublu jubale naa sama jëmm ñeel ka nga xam ne jëme ko ca ka nga xam ne ak sama teraanga teral gi mu ma teral leer na ci ñépp ne mooy ka teral li man takrimuhu baana fii shahri mawlidi man fil bahri rabbana waxagul ne diw laa jublu de waxagul eh, eh, tur wi waaye def ne maa ngi ko jublu nag ci weeru juddu ki nga xam ne moo ma yar ca géej suñ tubaab tarbiya gi ñuy defal sufiyanke yi yeneen si ko defal ca géej loolu la wax waaye wajatu waj iliman man jooju nag da ko leeral fii ne lillahi shukriya في شهر الربيع هنا على ابتداء الذي lixtaala xurbana nga xam ne kon wajjahtu wajhi lillahi moom la jublu woon ca wax ja mu doon wax waaye damay dem ba la la nga xam ne lépp Sëñ Tuubaa wax ne ne yàlla ko ko defal rabbaytani falta ablil ama ya samadi idmaana xayrin wa isaadan wa iskaana rabbaytani bada itaamin wa tarwiyatin an yawmi tarwiyatin is joxtu sadyaana makkantani bada dayxin suxtali ulalan muwassi an badama qad qad ixtu uryaana naajaytuka alyawma yaa man amsi karramani وسخت لي اليوم إيخانا وبرآنا اسرف قلوب النسارى يا قدير إلى نسري وردلي من قد عس أو آنا بكونك الواحد الخآر منفردا لقأر إدانا على بشراي إدمانا نبتني أمسي تنبيئا أرى عجبا أنت البديع الذي ما سال رحمانا yastartali am si ablil yawma tawsi'atan bi ulaasimu ma tardaawu ihsaana aawaytani baadama daaxal fuaadu asan fasarmadan li rujjinan wa insaana aslamtu wajhi ilayka alyawma saaxidamin liman xadawtu lahu kaban wa asaana daa midaadi qadaa haaji li xidmati man tabshiru darar al aadaayi ansaana nga xool sëriñ bi li muy wax fii rek rabbaytali rabbaytani falta ablili ama yaa samadi rabbaytani baada itaamin wa tarwiyatin makkantani baada dayxin suxtali ulalan naajaytukal yawma yaa man amsika ramani wa suxtalil yawma xoolal li suñ lim lépp lépp lépp di wax ne yàllaa ko ko defal nga jàng ko ba noppi amoo genn genn genn xalaat jooy xalaat lu may ngay xelaat koo def yàlla moom ci boppam kawin bi kulliya fii sal yow mi taw si atan ata uqima li diinillahi arkana bamba munul dara bamba deful dara bamba waxul fu mu tekkee dara yàlla rek lay samp ci suñ kenam ak yonent bi di diñu ko joxoñ naan kii moom ma defal lii ci daraje kii la ma defale lii kii moom ma defal lii ci daraje kii ma defale lii kii moo ma defal kii la ma defale lii kii moo ma kii moo ma musal ci lii ci daraje kii la ma musal ci lii waaw koo xam ne moom daa taxaw far boppam gisu ko tudd ko fenn di tudd boroomam ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ak sahaaba yi naka lañ ko yëkkatee rombale ko sahaaba yi rombale ko yonent bi ba di ko tëkkaleeg boroomam ba fa rombale ko boroom jëm ko ca kaw loolu naka la mën a nekkee sëñ Bàmba dina yàllaa ko yar mu ne ko nag ma may nag te at mii yow sama wéeruwaay ma mën a sax ci lu baax faw te nag ma defal ak texe ak ak dal dellu ko ne rabbayte nii yaa ma yar lan baada it amin wa tarwiyatin delu ko ne makkante nii baada day xin sirtal yi ulala ne ko naajetukal yow ma yaaman am si karraman yi lépp lu suñ bamba am mi ko am ci daraja yonent bi ci ko ci ko ko sunu borom may bëgguma guddal ndax kon lay sori waaye naa ko tëjee rek mu am madin mu am ah, maa ni da ami daal yi xadaa aji li man tabshiru udar al adayi ansana muhammadin khayri khalqillahi sayyidina salla alayhi allati ad'u tibyana muhammadin khayri khalqillahi sayyidina salla alayhi allati ad'u tibyana wax jooju rek bu ko Sëñ Tuubaa bindoon muy benn bayit kese mu yem ci waxul dara danañ xam kan mooy yonent Yàlla Muhammad ak bu ko Sëñ Tuubaa teg daf ne Muhammad mooy ngeen ji mbindeef mooy sunub sang muhammad mooy ngeen ji bindeef mooy sunu sang kon saxal na ne lépp lu ñu bind yàllaa ko bind te yàlla kenn bind ko waaye saxal na ne lépp lu ñu bind muhammad a ci gën te saxal na ne moom Seydi Cheikh Ahmad Bamba yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa moo di ab sangam moom lu tax du ngeen wax lii waaye wax leen lii waaye ngeen noppal nit ñi wasalaamaaleykum wa rahmatullah